wala nga dëkk ci terrasse ngir sëñ Tuubaa waroo ko waroo ko wute ndax ku munta leble yi war ngaa mën a fay ko dañuy tagg Sidna Omar Abu Bakr ne bu leen ma tàngal Omar Omar Mohammed waaye ceerno yi ceerno ceerno sëñ Tuubaa waaw da koo doyloo ko defu ko mag defu boppam rek ab bi la def boppam ba muy ànd ak sëñ bi neexoo ma woon lu nekk ci moom ci bàgge bu fekkoon ne day sàmmaa damay topp ci gannaawam di ko wàññi tëllu yi ba lii nuyu sëriñ bi nuyu mu jox ko ci loo xam ne joxu ko kenn ko foo xam ne tegu ko ñaanal ko ñaan koo xam ne ñaanalu ko kenn ba yàlla fayee ko lii kon nag képp ko bokk ci Ceerno rek ak lu la mën di dal rek waroon ngaa bàyyi lépp di teew ci fii lii du woote bu gone du ay gone yuy woote du ay taxawalkat yuy woote naqar yi ku ne dégg na ko ku ne gis na ko ku ne def na ko ñépp a koy naqaru ci Sénégal noonu nag noo ci war a raw ndax sëñ bi Thierno rek la doy loo woon Thierno yi def ko noo xam ne defu ko kenn téye bu téye boo xam ne téyewu ko kenn kon nag balaa am bànneex ci waxtaanam day wax maag sama sëriñ bi musul na maag sama mag bi mukk loolu lay wax ku mu jur jébbal na ko dañ mu daaw bàll dañ mu daaw biib ibra fan ñank seexaw bàll ñoom la jëkk yóbbu ci sëriñ Touba waaw ba mu ko fa yóbboo da leen la ñaanal ba wacc wacc leen fa dañ fa jógee mu am Abdourahman Cheikh Faty Fall Abdoul Khoudous yóbbu leen ci sëriñ Touba musa laaju musa musa tudd doom mukk te du dafa laaj tur bi nañ ko Jolof laaje nañ ko Njaaréem ba tey loolu mooy taalibe kenn lu mu am mu yor sëriñ Touba joxe na ba joxe ay baax juróom-ñaari baa yoo xam ne juróom-ñaari nit yu ko jiite fii ba àgg Njaaréem jox ko sëriñ lu ne defal na ko sëriñ Touba sëriñ Touba fayee na ko lu ne kon nag bu demee ba nit dal ci kaw sëriñ bi ci yoonu murit ci cerno la dal dalul ci kenn cerno yoon wi ku mu neex mooy yoon wi ku na naqari mooy yoon wi ndax kenn mënut ne maa jëkk sëñ maa jëkk cerno ci sëñ Tuubaa kenn mënut ne sëñ Tuubaa wax na ma lu waxul kenn mënut ne def naa man lu defut ak kooku mooy yoon wi kon ku dal ci sëñ Tuubaa ci cerno nga dal kon jataay bi waroon naa gën a xumb ci kilifa yépp waroon na ñëw na ku fi moo ci loxo wala ñu la jox xaalis wala nga defee ne dara nga ceerno rek ak sëñ Touba ku weddi rek sëb sëriñ nga jóg ne taxaw na bàyyi naa ci sëñ Touba ku ko ci sëb sëriñ wax boo génne fii doo gis ku la gàttadu doo gis ku la buggee kon sëñ Touba lépp kenn warul wala bés ñëpp waroon nañu ñu ceerno seexal ak ñu sëñ Touba ñëpp fi waroon a teew tey jii kenn fii kenn fari woon a wara fi a xaj waaye laa nga xam ne kon ci woote bi la waaye ñëpp fi waroon teew kii nag dafa noo tooñ tooñ yoonu murit waaye nit kay boo ko gëmul gëmoo ay waxam jaamureel ci moom nit ki kay bu fekkee ne àndoog moom bokkoo jëf tari xam jaamul ci ay mbiram ah, loolu moo di njàmbur waaye nag yoon wi ci boppam mooy bëgg a doy waar lii tribunal mënu koo faj dara mënu ko faj la ko daan faj rekk moo koy mën a faj ku dajeeg moom jëflanteeg moom ba ku la ca fekk fekk la ci ba lu la ca fekk fekk la loolu mooy yoon wi looloo lañ fi daan def ceerno takk tare na fii tare tare mu te mu takkulu ay fas na na ngeen leen rëgët ba fi ngatu daaru si yem ngeen wàcc leen fa def nañ ko fii ñeenti nit sëñ Moutar Samba ko fas sëñ Mor Jëm takk ko fas sëñ sëñ Fati Sall takk ko fas ñu leen fa mu ngatu daaru yem ñooy leen fii la ngat bi yem génn leen dëkk ñu loolu sëñ bi def na ko kon nag lii bu amee ay wax sottalu ko tribunal sottalu li koy sottal mooy ñoom ñu jiite tarixa bi nañu wax sëriñ Muntaxa laa wax tey mooy sëriñ Tuubaa te mat ko sëkk kon nag buñ dalee ci kaw sëriñ Tuubaa ci kawam lañ dal te kenn ñu wu ko ci at yi nekkoon kon bu aayee ñu dal ci kawam war naa jóg taxaw war naa jóg wax yéen taalibe yi nag bu ñu defalee sëñ bi lu rafet yéen war a sant kooku bu ñu waxee sëñ bi lu ñaaw yéen a wër ba wëlbatiku fay loola waaw man daal li nga xam ne moom laa ci bëgg jaañ ku dëkk Daaru Muxti ku dajeeg moom ku ne xeexal ak moom la ca fekk fekk la ca waaw ñun daaru foofu la nekk te duñ fi jóg ku jógee daaru ku ne ku dëkk Daaru Muxti ku ne wala nga yaakaar moom foo dajeeg ci wax li Sëriñ Tuubaa jëfanteel ak moom bañ fekk la ci bul ci bañ kaso bul ci bañ ñu rey la bul ci bañ dara sëriñ bi jar na ko ci nun <coughs> sëriñ bi leen bëgg a def aw lay ëllëg te mat na ko nun ñi ñëpp sëriñ bi lañ yaakaar waaye buñ waxee nga ne am murid laa sëñ Tuubaa rek laa yaakaar jërëjëfe borom daaru te buñ ci waxee lu dul noonu doo tontu buñ ci waxee lu lu dul noonu doo doo ko faj loolu ay caaxaan dong la nan bàyyi caaxaan yi te bàyyi wax ci loolu ay caaxaan dong la sëriñ bi jëfam dafa nekkul ci ah jërëjëfe Thierno daa nekkul ci sëñ Touba rek laa yaakaar nekkul foofu de sëñ bi dafa waxoon ne yii ñoo am taalibe boo xam ne bi daf maa gëm di ma liggéeyal di ma jox alalam te du jaamu yàlla nee na kooka moom noppal na boppam bu des bu con amee man lay may sonn taalibe boo xam ne daf maa gëm ma jox alalam du ma liggéeyal kooka ne mi taalibe boo xam ne dafa maa dafa may jox alalam di ma liggéeyal di jaamu yàlla kooko noppal na ma noppal na bopp taalibe boo xam ne daf na rek dafa maa gëm bu ñu waxee rek nga ne jërëjëf sëñ Touba bu ñu waxee nga ne jërëjëf maam Thierno doo joxe addiya bi yaa ngi ci fenn weer tàll loolu la sëñ bi waxul kon nag man daal li ma leen di sant ta taalibe yi daal mu yëpp laa ko sant la sëñ bu ko doon daan wax lii kat ñi ma war a digal laa koy digal kenn ku ko dégg te bëgg ko jëriñu nag booy boo nga fab jaañ daal ku dajeeg moom ci dëkk daaru wax naa ne na moom boo ko mënee fetal fetal ko boo ko mënee dóoru yët ko yët ba ñu àtte lii te la ñëpp war a nekk waaw fi la ñëpp war a nekk te it sëñ Tuubaa du moroom sëñ Tuubaa du moroom loolu Moussa Ka ne ku tëkkale Bàmba ak sëriñam dafay nar liggéey ga fa ndar gisee su ko mbar fa loolu mu wax ne la ku bëgg ne maay bàmba nee na da sàkk ku mel ne Cheikh Ibra Fati bu Ahmadou Mbaye wala làmp borom ñooñu kenn mënatu leen a sàkk waaw kon nag ñoom ñooñu nga xam ne dañ leen a ci way wi ñoom itam nañu jóg te taxaw te taxaw waaw lii daal la ñuy wax di wax sëñ Mountakha ne nag ah na ci wax ba àddina bépp xam ne wax nañ ndax tey jii kat mooy Sëriñ Tuubaa ndax bu woote woon daaru mu sigéer nit du faral waaw bu ne woon nañ bàyyi mag mu daaru gu nu bako waaw waaye nag dafa jiite rek waaye sëñ Tuubaa ñun ñëpp ko bokk sëriñ ñun la daa waxoon leen fii nekk des koy jënd jarbaat mënu cee jot doom mënu a jot rakk mënu cee jot te jënd ko ceroon nag daa jënd ba mu mu mu jaay ko ba ba wis ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci lii ngeen def xeeb nañu nag jataay bi lool man xeeb naa ko damaa defoon ne ci lii yëpp lañu leen di fekk maa ci gën a tuub maa ci gën a néewle waaye nag sama xol bii Sëriñ Tuubaa rekk ci nekk ak ceerno waaw leneen néewu ci nag ndax nit bu fàttee la ko faloon day folli te sëriñ beenu fal nit koo xam ne boo yónnee seen nijaay mu daw sa nijaay mu boo toogee ci kaw mu toog ci suuf kooku Sëriñ Tuubaa rek ko ko te la defal loola nag te ne lii kat lu tàmbali rek la waaye bañ demee ba fa maxa lay doole benn ci ngeen xam maay kan mu yaakaar ko tey ak ëllëg di wax ne jaañ daal moom nan jëf leen teeg moom la yoon bi jëf leen teeg moom yoon bi sax ñu ci dara waaye nag ñu ñenn ñu jëf leen teeg moom man nag fii laa nekk te du ci jóg kuy wax na ñëw wax ma kuy jàppe na jàpp ma maa ngi ci lii wasalaam.